lillahi wa inna ilayhi raji'un euh, tey dañoo yeewaale tiis muy dem gi nga xam ne Cheikh Saliou Touré da ko wuy ji boroomam nekk tiis lu rëy loo xam ne dafa nekk ci euh, Thiès nekk ci euh, Sénégal nekk ci àdduna bépp ndaxte Serigne Saliou Touré nekkoon na nit koo xam ni li ko ñoroon mooy lislaam li ko ñoroon mooy doomu aadama te loolu mën naa cee joxe ay firnde yu naañ Euh, Serigne Saliou Touré fédérateur la woon boo ñëwee fii bi euh, mu jógee bi mu nekkee fii cees ba léegi euh, dox na diggante tarixa yëpp ba nga xam ni jàmm ak salaam ak déggoo rek moo fi am ba ci li nga ni ma ko laajee ni nga ma ko waxee léegi ba ci église bi Serigne Saliou Touré amoon na ak ñoom relation yu rafet yoo xam ni wax dëgg yàlla abbé bi bu daan ittewoo wala mu am tiis wala mu am leneen daana fa yónnee wala mu dem fa yóbbu fa ay teraangaam sëñ Saliou Touré daal Cees ñàkk na ñàkk nañ nit ku valeuré ñàkk nañ nit foor ñàkk nañ nitu diine ñàkk nañ nit koo xam ni wax dëgg yàlla euh, bi muy ñëw fi Cees Cees nafa tumburanke woon euh, njiitu murit waaye sëñ Saliou Touré bi mu ñëwee wax dëgg yàlla Cees dafa yëngu daa yi sampu taali xale yi daal di dugg ci daayira yi njàng mi tàmbali Euh, ñu ñu tàmbali di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax loolu yëpp it mi ngi ko def ci ndigalu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak Serigne Saliou ma nga xam ni moo ko tërbiya moom la nekkal ba mu xëy jébbal ko Serigne Abdou Khadir mu yebal ko fii Thiès mu jiite jàkkay murit jiite taalibe yi nga xam ñoo nekk Thiès yëpp ak région de Thiès. mu mel ni euh, ndong ay tuuti tànk sëñ Saliou Mbacké bëggoon na ko lool booy dem si yoonu Tasset amoon na fa benn kii ba sëñ euh, Amar kii doon fekk di ko seeti. boo demee itam si Touba am na foo xam ne foofu la amoon makaanam euh, mu mel ni moom tamit euh, sëñ Saliou ture fii gis nañ fi ay ndongo yu bëree bëri te euh, daanaka kenn santu leen ñu yelwaan kenn santu leen également kii dañu amoon prise en charge médicale loolu ndax mën nga si dellu sax waaw mën naa ci dellu ndaxte sëriñ Saliou Touré lépp rek lu muy def lu nekk ak doxinam yëpp rek mu ngi koy doxi ci doxinu sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ni moom moo ko tarbiya moo ko mën naa ni man mën naa ni moo ko moo ko moo ko yar moo ko jàngal moo ko tarbiya doxinam rek la daan doxee boo gisee daara mu murid ji ay dongo yu baree bari ñëw nañ fi jàng fi ba moo ko fi Alxuraan te benn dongo du yalwaan lépp moo leen di jël en charge loolu moo lay wane kon moom fa sëñ Saliou tegoon euh, xale sëñ Saliou Mbacke dafa bëggoon xale lool bëggoon xale lool sëñ Saliou Touré noonu la meloon ci xale ubbeeku ba ñëpp ñime ko ubbeeku ba ñëpp euh, ba ñëpp ñime ko ba nga xam ni bu lay jàngal wala bu lay jàngaloo njàng ma day day day yomb lool. Mhm. sëñ Saliou Touré daal ñun daal ñàkk nañu. ñàkk nañu nit ku am doole nit ku am solo nit ku baax nit koo xam ni wax dëgg yàlla fi yoonu murit toll jëf na ci bu baax a baax a baax xalif yi fi jaar yëpp nag ñoom ñëpp làq na seen ngërëm sëñ Saliou Touré moom dafa wàcc la war yëpp def na ko li ko def yëpp war na ko ci taalibe yi kon ñu muñ ak sant. ak euh, ñaanal ko sunu borom tabaaraka taala yàlla na ko xare ci àjjana yi gën a kawe. nga xamoon professeur Moussa Fass Touran nekk koo xam ne kenn la aussi si kër gi si kër euh, diine euh, am makkaan at bu nekk sax ñu koy defal benn bu mag màggal bu mag. ndax amoon na ay relation ak sëñ Saliou ah. diggante. waaw diggante Serigne Moustapha Sourang nga xam ni moo fi nekkoon ministre de l' éducation nationale nekkoon fi ministre des forces armées diggante ak Serigne Saliou Touré diggante bu rataxoon la Serigne Saliou ture moo doon référence su sëñ Moustapha Souran ndaxte sëñ Moustapha Souran surtout soxna Serigne Touba la doomu soxna Bintu mu sëñ Modou Moustapha waaye Serigne Saliou Touré moo doon référence am moo doon kilifaam moo doon ndiyaayam wax dëgg yàlla yàgg jàppale na ko yàgg na ko jàppale lool yàgg nañoo ànd ci lu bare baree baree bari sëñ Moustapha Souran dama naan wax ni ma Mamadou ma ne ko Mbacke mënu ma Serigne Saliou Touré mii. mooy référence mooy tampon ci yoonu yoonu murit mooy tampon ci yoonu murit ndaxte wax dëgg yàlla euh, ni mu jiitee taalibe yi ak ni mu yëngal doxalee euh, yoon wi ci Thiès dafa neex dafa dafa jaar yoon dafa weesu dayoo kon ñun duñu mën lu ñaanal Serigne Saliou Touré suñu borom gën koo delluwaat ay leer bu baax a baax. Euh, ñu jeexal nag li nga xam ne moom mooy interview bi. Mm-hmm. lan ngay wax taalibe yi mbokk yi umma islamique bi. Mm-hmm. Sénégal Afrique adduna bi. waaw li may wax daal ñun ñàkk nañu daal ñàkk nañu waaye ñàkkuñu ndaxte Serigne Saliou Touré wax dëgg yàlla li mu def ci Thiès daf ko ci xale yi daf ko ci euh, donga yi kon mën naa ni euh, continuité lay doon ndaxte ay waa këram a ngi fi te wax dëgg yàlla li mu leen yar mooy ci diine rek li mu leen yar mooy ci ak taalibe rek kon yaakaar naa ne Serigne Saliou Touré dem na waaye jëf ji mi fi des ba faawu rek Serigne Saliou Touré kenn du ko fàtte ci àdduna dañ koy ñaanal rek sunu borom yàlla ko xare ci àdduna àjjana yi gën a kawe ngir ñun ngir ñun tuuree ngir ñun ngir ñun tuuree ngir